fi fii Géejawaay wetu hôpital Roi Baudouin ñu gis na am na benn kaawu feebar bi ñu naan coronavirus ndax yéen siisoo leen ci loolu. ah man de tiituma si man taalibe sëñ Bamba laa moo tax du tiit si loolu waaw. Ah. ci nakal taalibe sëñ Bamba lu mu ubbee wala lu mu feebar bii di coronavirus. ndax parce que ay khas de lañ ñu lepp lu sëñ bind ñun xam nañ ko mo tax ñu lolu duñ ci tit duñ ci ragal ndax suñ sëriñ dalal na suñ xel sëñ bu taxaa dalal na suñ xel ñu wa mo tax duñ ci am tiitaange quoi euh mais euh, gëm-gëm bi bu wéso est ce que yeen gi jël matukaay yi nga xamante mo war ngir muccu ci feebar boobu. ah man da jëluma ndax maa gis nit ñi di tax. ay masque lu ñu dugg si mais man moom ah, loolu man jëluma si quoi man maay bàyyi lépp si loxo Serigne Touba waaw. am nañ lu bu baax a baax kay bañ na ko man instant bii nii du fii nii Roi Baudouin du ma nuyu kenn te kuy wax ak man moom dama lay wan ginnaaw baa ma jox la wet ndax affaire bi waaw yaa ma gën a xam ñoo ne cas bi fii la ñëw hôpital bi fii ay 4 heures cas bi na ma na fi naa ne bari na fi daa feeñagul rek na mu ngi feeñ ndànk-ndànk dañ dem bas xam naa ne bari na fi lool sax waaw moo tax instant bi nii ñun moom dañoo tiit tiit nañ lool sax gars war na ñu see jàppale. mais est-ce que ngi jël matuwaay yi ci war maanaam cet gi. waaw waaw ñun moom ñu ngi koy jël waaw ñu ngi koy jël bu baax ndax am na lu ñu wax ñu ngi koy def. kaayo moom garaaw na trop mais dañuy ñaan yàlla suñu borom mu musal ñu ci képp ku fi dëkk ak ñu fiy ñëw di faju si. waaw. Euh, kaa bi bi fi am ndax yow yaa ngi fi

voilà. tey am nañ si tiit ah, am nañ si tiit trop parce que dafa nekk feebar boo xamante ni tey mun naa wax ni tey foo ko déggee yow sa xel du daal parce que sa mbokk rek bi su déggee ni géej géejuwaay gis nañ fa feebar bi yow sa xel du daal waaw te lu am la aussi tamit buñ ko déggee démb tamit lu am la am na loo xamante ni tey démb gis nañ ko fi. Ah, demb ba affaire bi amee fii ñun ñëpp génnee nañ ñu nekkoon fii yëpp gis nañ benn protection boo xamante ni carrément que mi ñuy sol euh, blouse yoo xamante ni tey habillement bi moom la ñuy def ñoo xamante ni am nañu kii bi virus gis nañu médecin ñoom ñëpp dem moom lañu ñu porté dem waaw te ambulance bi démb mu ngi fi doom jaabante dem di ñëw waaw pour am ay preuve que ni carrément ni kii euh, patient bu fi nekkoon am na ko ou pas. patient bi si lu ñu dégg ñun wax moom Sacré-Cœur la dëgg ah. si ñun lu ñu dégg lu ñu dégg parce que toog kooku. mbokkam moo fi nekk waaw dëkkul géejawaay ah ñun moom wax dëgg fa neex yàlla tiruñu ci loolu quoi parce que affaire moom faa nga faa nga protéger sa bopp quoi parce que feebar moom boo ko demee sa xel rek daanaka moo dalay sonal amaana ay boo xoolee ba léegi dalagul ay noir ay nii ay ay tubaab la dal.